ci seen teewaay fii euh, di nuyu toute la presse d'une manière générale parce que ci soutien bi surtout ak di nuyu la population sénégalaise yi nga xam ne suba ba léegi yi ngi ñuy woo di ñu woon seen cofeel di ñu woon ne ñu ngi suñu ginnaaw waaw ñun arbitres yi dañoo décidé demoon en mouvement pour ce week-end pourquoi ñu def ko mooy dañu amoon loo xam ne daf ñu naqari woon ñu koy jooytu chaque année ñu jooytu ko mais ñu gis ne amul benn satisfaction te revendication yu yu normal la yoo xam ne d'une façon légère la sax boo xoolee euh, loo xam ne koo ko wax ku nekk ci activité bu mel nii war na ci mun a taxaw parce que suñ demee bay laaj sécurité sécurité bi bu ñu koy wax mooy euh, assurance parce que tey jii arbitre yi ngay gis ni amul kenn ku ci assuré te gis ngeen combat yi ni muy demee euh, li ci mujj rek mooy combat bi passé bi amoon fii tojoon nga xam ne lu ne xajoon na ci te les arbitres tous les arbitres du Sénégal kenn assuré wu ci mu bokkoon loo xam ne ñun dañ koy kaas dañ ne du yoon ñu continuer di jël ay risques mais dañ toogoon di ko muñ naan a ah, xëy na déwén mu changé mais chaque fois bu ñu day changé ñu yóbbuwaat ñu ne xaar leen xaar leen ba finalement duñ ci mën dara après saison bi jeex noonu te risque yi ñu jël dafa énorme kenn xamul fan lay fan la affaire bi di di ñëwee danger bi fan lay ñëwee beneen bi mooy. Euh, honoraire u arbitre yi honoraire u arbitre yi si si si domaine yëpp tey jii boo déggee ñu naan euh, euh, règlement bi am dakaar amul moo war a am ci région yi mais effectivement loolu mooy yoon mais tey ji application bi am Dakar amul ci région yi région yi pour cent yi ñu wax si bëre simple bëre simple arbitre yi dañu war a am 70 pour cent wu mise amul benn région bu koy jot léegi pratiquement am na région yoo xam ñoo ko kaasal seen bopp xeexal ko seen bopp ba affaire bi yegg ci gouverneur ñu soog ko réglé moom mooy la région de Fatick la région de Fatick la Fatick euh, la région de Fatick ñoom Fatick ville effectivement ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko kaas ba am ko léegi loolu ñu toog fii ñun arbitre di ko ñax ñu toog wax CNG ne ah ñun loolu bu ñu sañoon mu changé CNG defu ci dara parce que dafa ne munu ko mënul yokk honoraire arbitre yi parce que honoraire arbitre yi ma fàttali leen encore une fois euh, ñun combat li ci ëpp boo jëlee quatre vingt six quatre vingt dix cent au combat yi les arbitres perçoivent cinquante deux mille cinq cent cinq arbitres ñooy recevoir cinquante deux mille cinq cent lan moo tax parce que ñun bi ñu fi nekkee man bi may arbitré ba léegi maa ngi arbitré depuis quatre vingt dix sept looloo am sept combats lañ doon arbitré di jot trente cinq mille léegi ñu yokk combat yi à dix. lan lañ ci yokk mooy moitié wu 37500 muy 17500 37 35 muy 17500 ñu yokk ci 37500 muy mu jox ñu 52500 cinq arbitres di séddoo 52500 ak risques yu énorme yi fi am man mënoon naa comprendre sax ñu ne ma assuré nañ la mais vraiment xaalis bi mënuñu si demee nii mais assuré wuñ la joxuñu la prime de risque mais lan la ñuy wax souvent ay honoraires ngay jot effectivement honoraires mais honoraires les honoraires sont discutables maanaam war ngeen mën a négocier yéen. ñii di arbitre ñii di jot honoraire ak CNG war nañ mun a négocier ba xam ci lan la ñuy jot mais nekkul ne dañ ne honoraire honoraire mooy ndàmpaay du ñuy xëy rek ne la am lii non loolu moom taxuñu jóg risques yi ñuy jël ñun ay père de famille lañ ku ci nekk da nga yor famille soo gisee tey jii nag ñuy wax lamb ji ñun ñëpp ko bokk bëgg defar moo ñu tax a jóg suñu waxee ne arbitré wuñu CNG la meilleure des façons c'était de dire kaa leen ñu wax parce que dañoo wax ba sës moo tax ñu jël décision mais CNG deful loolu dafa dem uti jëy arbitre arbitre yi ngeen gis c'est des arbitres locaux arbitre local mooy lan mooy koo xam ne fo deful formation mooy ki nga xam ne da nga da nga toog fekk ko si lieu bi mu doon jàppale làmb ji nga jël ko boole ko ci parce que noo ko former parce que jàngul munul def rapport donc ñooñu mooy arbitre locaux ñoom ñoo nekk fii tey ñun gënaluñu mais munuñu si dara dara lañ ci munul parce que dañ ko observé ñun ak sunu collègues yi nekk si région yëpp dañu ne nañ observé 48 heures yi nañ euh, observé 48 heures de grève bi xool ndax dinañ wax ak ñun kenn woowuñu tey ñu am chance am euh, réunion comité élargi gars yi ñëpp wax si point bi mais boo xoolee liñ ci waxee en quelque sorte président Aliou Sarr presque daf ñu menace parce que dafa ne prenez vos responsabilités ñun suñu responsabilité nag mu ngi nii ñu ngi koy jël parce que ay père dafa ñun dañuy xale yu ndaw de dañoo yàgg ci làmb ji liñ ci yàggee mosu leen ñu dégg ñu waxee tey dañoo sës dañoo sës moo tax ñu wax on est resté très longtemps di muñ parce que on nous dit souvent yéen démembrement wu état bi ngeen CNG ngeen bokk c' est un comité effectivement c' est un comité mais jusqu'à quand jusqu'à prendre des risques pour mourir duñ ko def ñu ko. waaw non dinañ dinañ waxaat leneen lu ñuy def dañoo dañ dañoo nit ñu bëri dañ ñu waxoon rek nañ nañ arrêté après ñu xool lënd ñu xool nan lay demee mais quand on a consulté la base ñu xool arbitre région yeeg ñoom ñëpp. ñëpp nee nañ non non 48 heures lañ waxoon nañ ko respecté on va respecter cela. gars yi ba ah. gars yi nee nañu ñu bon au fait bi sa dépend xam nga nit ñi ñu ngi naan euh, waxuñu leen ko à temps on leur a dit ça le vendredi effectivement mais li ko jiitu moo tax dama ko wax waxaat ko réunion man amul dara lu may wax si biti te waxuma ko réunion man je fais partie du CNG en réunion de bureau. bi ma waxee waxaat ñu rencontré leen ñu waxaat dara changé wul ñu ne ñoom mënuñu ko mënuñu ko régler mais loo mënul régler lan lañ ciy waxati ba pare si biir réunion bi j'ai dit à haute voix nous irons en grève bi ma ko waxee ñu ne ma suñu yegee foofu ngeen jël seen responsabilité moo nekk ni président Aliou Sarr moo ne bu ñu yeggee foofu ngeen jël seen responsabilité ministre Matar Ba woo na sànq ñu waxtaan ma ne Euh, moom da doon wax naan pour pour ñu reprendre kii euh, combat yi ma ne ko présentement ñii indi nañ seen arbitre ba pare mais comme que indi nañ seen arbitre ba pare duñ fa dem di nekk ñoom muy indi mel muy indi tension parce que mun nañ foog ne dañuy ñëw pour yàq combat yi non nous ne sommes pas venus pour ça léegi ñu ne mën na ministre bi je vais consulter la base dinaa gis arbitre yëpp suñu changer décision peut-être on va arbitrer le dimanche peut-être maintenant quand j'ai consulté les arbitres ñëpp nee nañ ak ñi nekk ci région yi ils ont moo tax boo gisee ñëpp nekk nii tey réunion bi lañ defee fii pour jël décision léegi on a pris la décision suba tam du ñu arbitre voilà loolu mooy. waaw léegi après nañu xam suite bi ñu ngi leen di déglu. man maay président commission centrale des arbitres voilà man maay représenté arbitre au niveau du CNG de lutte voilà merci.